Bienvenue sur Salam Vision. oh baby sama xol nga musa dem Fatima bëgg naa la sopp naa la wolu naa la sama xol nga nekk Moussa Mbaye ma. salaamaaleykum comme ni ñu ko saa lu fi jàll jàll lu ci des la gars yi xool moo dem ci prison Gaza lu waral teewaayu tey tey ba am benn MC boo xamante ni dañ ko seet si MC Misère lu waral ñu ñëw nag ñu ci ko tuuti mais balaa boobu dafa koy bàyyi mu déglu MC maa ngi lay ziar. waaw dëgg la ziar. baa ngi leen di jox baax a baax. waaw maa ngi si jàmm baax a baax. tey ñu daal la tey ñu ngi tey ñu lay si xam nga tey ñu ngi xam fan mooy MC Nizer lu waral Nizer. waaw MC Nizer moom sama tur artiste quoi man sama si Monda. waaw. Euh, MC Nizer moom kan lay def wala leneen lay def wala sax sax lay def. MC Nizer moom rap lay def waaw. rabaiyatwa yadda ya zama da ɗanci da su da ɗanyar kwabe da sai har da jika wasu a gaba mu yadda ya zama da su ne da taɓa da su da kusa a ba da wasu su da bai taba Okay. bismillahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim salaam salaam salaam man sa yaay jeex bi soo waa jàmm xalaat si waa nga xamul xam see jokaas ko dèjà ak bële lu waral nga jokaas naa ak bële day yëg. daal bu leen di sax maanaam maanaam loolu ci pourcentage yi yomb quoi. boo ko yëg boo jàpp bële da ngay soxla tey pour loolu dina taay da ngay taay sa si biir pour ñu yàgg say traitement est-ce que par exemple da nga arrêté. waaw loolu damay dem tamit parce que 也就是国内嘛。那对于呃一般来说，大家看到很多后面，人家不在那个中，格拉西带领的，球员带领的，那对于 MC 的人，这干了 MC 的人，干了不老实，你起码，把安德烈不老实了，那对于人家的。ki ko moom sama xat mais ay coow ma mais gis naa ko waaw man yegguma la tàmbale ci biir ko mais affaire bi ndànk ndànk rek da cee baax waaw. mais mais léeg-léeg soo yëgee utiliser maanaam apport data ci yenn dëkk yi fan lay def ay tournée comme di def dëgg ay concert waaw maanaam pour nit ñi mën a xam tuuti quoi. voilà fi tam si di jël commencé def ay tànkam quoi ci ay bénéfices yoo xam ne ñu koy jëfee quoi. village. village précis. dem village la. man yow yow dëkk nga doon foofu dëkk boobu war naa ci ci ci boobu la ñu mën a. encore mais loolu bu soobee dëkk la yàlla bu Sénégal bi yor. mais lii ñu doon dañ ko doon laaj yow doon tey day am. tey jii yow taxawaay ñu ngi gis ci dëkk boobu doon gars yi ñu mais kooku amaatee la yow nga xam ne tey dañ leen di jàllale ñu wax ñu ñu dëkk ba ñu ñu bëgg a xam ne. waaw waaw am na. ndax gars yi dañuy jàpp si commande bi gars yi dañuy jàpp bu baax a baax. ñu jàppale parce que dañuy dañoo wax ni ñu ay doole ñu ñuy def nii bëgg nañ ko gàttal nañ ko daal loolu ñu jàppale ñu def. waaw. mais tey jii boo xoolee hip-hop bi xam na tey jóge na si dëkk yaa ngi am tey yaa ngi def hip-hop tey jii ci biir daanaka fii nii mos nga fay ay conseils wala mos nga fay ay conseils yoo xam ne maanaam dañ la ciy invité donc tey soo ko tey carrément tey bu ko tey tey ci ay conseils ak yooyu noonu est-ce que par exemple lu tax moom war a mën a ñëw tey ci waaw man moom képp ku ma woo ay ay ay waaw parce que boora aussi mooy loolu day yaakaar yaakaar nga nekk. waaw mais tey jii classe bari na jamono bari na mais tey jii yow yan dëkk boo war a gërëm maanaam nekk ci kaw gaz bi nga xamante ne yow bu ñu laalee yow nga xam ne yow am nañu donc nag am na yoo xamante ne nag dañu ko war a jël am na nag rajo bu nekk si yàlla dinañ am na ay yoo xam ne ay bébé wala du ko moom gars yi war a commencé di ko wax. ku ci mën di ko def rek loolu ñor na mais man jaay bi dina loolu ko ci débat tey sama invité tey dama bëgg tey bu baax a ñor yoo xamante ne tey jii maanaam pour bëgg Sénégal village yi dañoo bokk ci réew mi Sénégal fii bu ñëw Sénégal la bu ñëwee MC Dakar kese tax ñu naan MC déedéet tey boo demee Tamba am na MC boo demee Kolda am na MC xam nga boo jugee tey ci yeneen région yi pays yi am na yeneen dëkk dinaa soxla ay Bambey ay yeneen dëkk am na ay MC yu fa nekk mais dañu gën a yaatal affaire yi nañ gën a yaatal affaire yi li taxoon dañ gën a yaatal affaire yi mooy maanaam il faut que da te il faut que nekk war na ko war a def parce que tey su ma fàttali ko mbokku jiw bi nekk fii nii Sénégal dañoo indi di saako pour ñu lay dem jëriñu ay conseils mais boo ko defee am na ay waxuñu pour bindal gars dañ doon bëgg a yaatuwaat dañ doon jub seen kon tey képp ku xool tey tey da ngay gindi tey kii bopp kaas la tey da ngay bëgg tey kii di nga laajee ci biir bopp dañ koy tegawaat ci biir bopp parce que loolu mooy yoon mais bu ma la am si am si bu ma la am si am si te nga ko teg ko nii ci yenn ay ci yi nga xamante ni maanaam dañuy nekk ci taw dañuy tëbul ci biir mais nag bu ñàkk nag am na waaw am na action xamante ni xam naa ne mooy ay énebul bi quoi dañu war a ñëw am na yoo xamante ne aussi am na émission yoo xam ne moom moo koy émission bu leen tudd mais énebul yooyu nga am dañu nekk ci ginnaaw bi day yàq donc bàyyi nga leen xel quoi mais yow loolu yàlla bi nga laaj quoi lu waral yenn détails yi ngeen teg si quoi bu xëccoo seen biir ba yéen soxla ngeen jàmm. non Koungheul Ndiaye moom mooy loolu lépp lu la gis loo xamante ne moom mu ngi avancé ci kaw tey na avancé ñun dana yaakaar te ñun ñii artistes yi dañu war a war eh? a nekk dañu wax am na nit ñi daal mooy Moussa Ndiaye affaire yu ko dañu wax si gàllankoor. mais gars yi xëccoo bi ak biir gàllankoor bi nga xam ne sax léegi mënatu noonu. mais li ngay duwaay wax rek xëpp ko comme Galsen mais mais ki ko Galsen wax dëgg la Galsen la quoi mais ñun comme si nga xamante ne dañuy taw di xeexante seen mbooloo même si tey nag day tëgg concert mu nekk ba tey bu la invité yow boo ñëwee fekk concert bi dana ñu doon invité loolu maanaam ci lan la maanaam ci mbirum bi nga doon ci soxla te nga war a lan la. loolu moom ci soxla loolu moom ci soxla waaw. mais yow tey yow boo ko dugalee sa concert dafa nekk am benn yoon booy boo xam ne am na taay yoon booy boo xam ne ay tur la nekk yoon booy joxaar semaine bi passé def naa ko benn émission mais sa diggante ak booy joxaar lan la. non képp daa moom sama booy laa déglu ñu dama temps waaw yàgg nañ yàgg nañ di jox ñu ne waaw loolu moom dara ma woon mooy wala kii quoi. mais loolu moom la tànn na daal boo war a bëgg ba ci émission boobu la ko def à à l' heure yëpp da nga xam rek ba mu ne soxlante bi quoi ci population bi coow li bari xam nga mais soxlante bi quoi soxlante bi maanaam ci benn ci benn affaire bu ndaw tey yow da ngay organiser sa concert tey nga organiser concert tey même loolu sa concert moom maa ngi mën a invité su ma la invité yow nga def concert bi da ngay war a mën bés bi ak yéen mais loolu dafa am dañoo ko mën a ci population loolu moom li ko war a dindi mooy gars yi gars yi moom parce que ñaar ñun ñëpp ñu ñëpp dañoo war a bokk ñun ñoo yëkkati ci ñëw affaire bi ñu jënd ko loolu yëpp am ci am am na ci sax am ci sax mais loolu yëpp mën na cee ñàkk loolu yëpp mën na cee ñàkk waaw amul ay affaire yu war a jàngal mais tey yow sa bopp yow dama ko def ay nit yi moom asam la parce que dafa may xam na wala fi mu nekk taxawul xam na waaw mais si diggante ak ñoom kon ku ci mel ni boole ko est ce que yéen fan ngeen dem ba yéen gërëm ngeen te il faut que jot na foofu wax ay gërëm quoi mais tey nga def bu jot jotee il faut ngeen tasaaroo dem yoon mais tey si diggante ak moom naan ñu naan ay gërëm ngeen est ce que yow war na tey jii lu jot na ak yow ay gërëm wala lu ci mel ni ànd pour war a mën a yóbbu Sénégal. oui si par exemple par exemple instant moom pare naa ko waaw pare naa ko sama yaay la aussi sama bés la tamit man sama sama mère la laa mais yow man sama yow man dama bëgg am na sa bëgg a dama bëgg a dama bëgg a dama waaw yaa ngi suñu mbokk daal waaw man loolu loolu la wax dëgg waaw commencé di conduire parce que kenn ku mu wax waaw man loolu ñu ngi teg waaye na ko yaa xam ne dama koy boole leen ci yéen ñooy ñëpp nekk benn quoi donc tey jii est-ce que xoolal na pour tëgg ay projet ci yenn villages yi nga xamante ni pour nga def ko en tout cas dañu koy ci dara pour pour teewul a mën a wàllu sa bopp. waaw. ngay naa pour pour tëgg rek. waaw par par ñu tëgg rek quoi. waaw. mais tey jii aussi pour tëgg rek rek est-ce que par exemple moom pour nga tëgg rek nga xamante ni par exemple dañuy tëgg rek ñu gis ay dara nga xamante ni pour tëgg rek. li nga xam ne day njëkk ci biir ñu ne ñu jàpp nañ ko am est-ce que xam nga pour nga mën ñu ko accompagner ak loolu di liggéey loo xam ne sa biir dëkk. waaw loolu moom loolu moom bàyyi na waaw bàyyi na mu dañoo war a yaay bu mu tàggalee jëndal si ñeneen waaw. mais tey jii da ngay gis loolu yenn gars yi moom la dañoo nekk ci maanaam ci aar bi. Sénégal bi ba pare ñooy ñëw mais tey jii yow saytaw bi est-ce que ñoo ngi ciy jàppale loolu état ñu taxaw gën a écopé nii wala ñuy maanaam loolu maanaam ci côté parent quoi ba affaire yi ñu xam xool la leen sa bopp. non am na ñoom météo météo am na ñu may tere nag mais man moom damay jox rek. loolu la la sama gars yi. waaw sama gars yi. mais léegi bu ma la météo léegi yow ah. loolu moom am na si kaw rek man moom li ma li ma liggéey moom dama ciy liggéey. mais sama sama dafay bu liggéey sa la. waaw dama pare bu liggéey liggéey. waaw waaw léegi xam nga lu ma la gis dara jóg nga jóg sa kër cristal nga sa kër rek kaay ma la naanal bu ñëw. waaw peut-être mu ñëwaat si yeneen quoi si waaw daanaka seen lan kii rek sa kër yaa conservateur temps pour nga may amal na biir. Après moi, elle s'est à Calonne, maintenant à part un petit monde. Ce qui devient par mes contribués et on est là. Je vois le parti par cette mairie qui prend de là. Je retourne mes amis, les plafonds me creusent sur eux-mêmes. Je suis une machine à passer, une machine à remplir le cerveau et en mode automatique. Je suis une mode libre. On me dit très proche, mais l'enveloppe est toujours après variation. Bien, bien. Je vous fais ça, je vous dis. Je vous fais ça, je vous dis. Je vous fais ça, je vous dis. manera boba, lo que reconoce y dice como ప్రాణము అనేక ప్రాణము అనేక అవ్వాల్సినగా నిగారని అన్నామే వాడిని చెప్తాను వాళ్ళు ఎందుకు ప్రాబ్లం Diriku saya itu orang kiri ini adalah orang kiri gua. Gaya itu saya ini orang orang kata bayi orang orang itu itu dia orang orang dia orang orang. Dia orang orang. Akhirnya mana saya. parce que xam nañu ne bu ñu nekk international waaw mu nekk international. macha allah macha allah dafay dafay waaye dina ko mën a mën a xam. parce que Indonésie dina déglu dina kàddu bu gën a nekk international. parce que Indonésie tey bu dee bu dee daal dina am na Maroc si la xelal. benn affaire sax tey bu baax dañ lay bàyyi xel fii. mais bu ñu gënoon ba pare rek mooy dinaa ko xam parce que mënuñu tudd ñun ñoom lañu ko gën a def boo am lu ok parce que ñu dem ne lañu def sama xam bu ñu jëlee ko amul dëgg la nag c'est vrai noonu la war a mën a demee loolu tamit bu bàyyi ko loolu aar bi xam na te instant yi am na yeneen formation wala yeneen incha allah bi di leen di ci fekkaat fekkaat na ci ànd ci ay possibilité liggéey yow loolu naa ne dañu kàddu nga aar na pour ñu gën a xam yaa ngi ci yoon et cetera ñu bàyyi leen doon ñëw sa waa dëkk sa Sénégal Dakar waaw ah di nuyu di nuyu avant maa ngi nuyu laaj bi naan xanaa naa yore na si tamit ah. loolu la ñu doxee. naa yore na si tamit ñu ne ñaanal di dem ak ñu ne yàlla defal jàmm ak ñu yaram waaw di nuyu tamit di nga xamante ne moo boole moo boole yéen quoi waaw di nuyu sama gars yi man li ngay daal demee noonu waaw. waaw mooy nag jaay la ren am na benn xam boo xam ne dafa ko waaw comme que bu ñu ko waaw da nga ko wax ndax boo demee soo ko war a dundee du nga xamante. jaay la ren aussi lii mooy loolu daa xam ne ñu ngi ko Boleh juga, boleh juga, boleh juga. Kalau boleh juga, kalau boleh juga, kalau boleh juga, loolu mooy njëriñ ah boo jaaree xool après nga jox leen rek téléphone bu baax après nga jël téléphone téléphone moom la ñu mun a jëfandikoo mais ba amul non non non moom la ñuy jëlee non non moom xool na ñu dañu koy bàyyi commandé quoi non mais gars yi dafa commandé ba ko mais quoi ñu bàyyi la toujours waaw ñu bàyyi mu jeex waaw kon boo xam ne yow kon boo xam ne yow ñu bàyyi la commencé comme daal waaw

mooy nga est-ce que ku si yor solo pour sos dem nga xam ne loolu moo ci mos a dem ñu ne ñoom ñoo koy joxe à chaque fois ci biir temps vision français day tàng day nekk mais nag bu dee ñu ngi toog rek mooy leen ñu nag dafa am ñu gis mooy dafa am ñëw indi leen gars yi bon bon bon waaw indi ko président yi man xëy naa ci rek man naa ci dalee ñëw. Fin de sensibiliser les comme je rappelle mes profs. suis un homme de caractère et une qualité que doit sans doute à man ak une colère de la table Niger. C'est connu pour le volet actuellement incapable. Seven eighty five Empire. Oh baby sama xol nga musa dem Fatima bëgg naa la sopp naa la wóolu naa la sama xol nga baby boy sama xol nga nekk mosada bay ma bienvenue sur Salam Vision